Salut les amis de eSportivier de Baba Show. Merci encore Guy de la confiance renouvelée. Merci de du like. merci de des merci également

loolu la gars yi di ruumalaat lan moo ciy détails ñu fas yéene ci ànd ci ak yéen jox leen ci ay leeral mais aussi di jaajëfal mbokk sénégalais yi nekk ca tugal yëpp ak ca diaspora bi marchand ambulant yi nekk ci ruq-ruqaat yi ñëpp fàttewuñu nag di Nigéria dañu waroon joué ak Libye waaye nag ñoom waa Nigéria neen du ñu joué mooy que ne ñoom dañoo yegg ca Libye gars yi téye leen bloqué leen ci benn euh, aéroport fa juróom benni waxtu six heures de temps alors que bokkul ak sax dëkk bi nga xam ne fa dañu waroon joué ñoom nag mujjantal gi ñu ne ñi daal ay sabotage dañu doon tax daal ñoom nee nañ dañu match bi moo tax amut kii nag eh, di Victor Osimhen ñëwul mais moom mi ngi daal di eh, masaw li nga xam ne nag mooy donc ay eh, àndandoo naataangoom ah donc ak aussi àndandoom yi nga xam ne teg leen li nga xam mooy donc tolof tolof yi nii nga gis photo yi nii donc gars yi commencé di ko publier kii nag di Erling Braut nag Autriche leen dóor ñoom seen équipe nationale bi cinq la leen daal di yan moom nag mi ngi jégalu Haaland booy doy di jóge bolu supporter na nag ñoom fi ne ñu ngi jégalu léegi nag objectif buñ jël dellu si waatee ak novembre inshallah bi ñu am 6 points manam ñaari match yi dess ñu daal di koy gagner lool daal moy seen bëgg-bëgg lool daal la Erling Bro Haaland daal di wax ki nak di Luka Modric Luka Modric gars bu jouer match contre Celta Vigo moy nek le joueur euh, du Real Madrid le plus âgé bu jouer Liga ki yor record bi nak Puskas la nga xam depuis 58 ans moo ko yor. ñu desandi ci Real Madrid ak ki nga xam ne donc kii di euh, Florian Wirtz nga xam ne daal gars yi nee nañ euh, fi mu ne Real moom lañuy ñuy daal di lijjanti pour mu ñëw daal di remplacer Luka Modric au milieu de terrain bokk na ci seen cible cibles yi gannaaw bi nga xam ne Arda Güler mi ngi fi mais dal euh, ki di euh, Wilit également bokk na ci seen cible les joueurs polonais muy ci Barça bu jigen bi ak Barça bu góor bi ñom ñaar ñëpp dal dañoo dugal ak seen li nga xam mooy donc seen club ak équipe nationale kenn ki mi ngi à 10 buts muy Lewandowski kenn ki mi ngi à 9 buts muy la joueuse donc polonaise du FC Barcelone wa Belgique nag ñoom dañoo noppal seen yenn joueurs yi ci trêve bi nii parce que xam nga rek muy Lukaku ak ñom euh, Kevin De Bruyne c'est xamante ni noppal parce que bëggul ñu gars yi gaañu tamit bëggul perte joueurs yi ndax surcharge match yi moo tax daal mu leen di noppal ndax ñoom ñaar notamment kii di Kevin ah. ki nga xam ne nag mooy donc également Nigeria maa ngi koy wax léegi ñoom daal fi mu ne nii ah, dañoo mer ba fut léegi nag kaaf moo war a addu jëm ci nga xam ne nag mooy donc doxalin bi par rapport ak taxawaay bi ñu am ci match bi daal dañ koy joué waat beneen yoon wala ñuy daal di dans Nigeria euh, pogné euh, Martinelli également le joueur de euh, Arsenal mom na xam ngeen ne mi ngi du côté du Brésil fa la nek mais dafa am ay douleur yu mu yek ci mollet bi dafa am ak métit bu yek ci mollet ba tax daal waa Arsenal ni ngi xaran ak dirigeant yu brésilien bu xool li nga xam donc situation bi ndax mën na wóyal nek fofu ñëw wala day ñibbisi li nak moy donc Ligue des Nations bi gars match yaa ngi ah, match yaa ngi ah, donc programme tay bi ngeen japp ko donc Belgique France ah, match bu ñëpp di xaar donc Italie Israël entre autre Amir Abdou mooy entraîneur bu Mauritanie waaye daal fi ne nii ñi ngi tudd Aliou Cissé du côté de la Mauritanie selon également nos confrères de E-Media notamment Sékou Seydi ñoom daal jàpp nañ ne Aliou daal fi mu ne nii waa Mauritanie ñoo ko daal di jege pour daal koy recruter euh, ndax fimné ni ñom dañoo nekk ci ab tolof tolof ndax ay défaite la ñuy nekk di tegleeg yooyu Amir Abdou nak nekk entraîneur bo xamné bo ba muy ñëw Mauritanie aussi yaakaar gu bëri la amon ci mom mom nak contrat am euh, jeexagul ndax dafa khatim contrat bo xamné nak gaay mi ngi dem ba 2026 une équipe mauritanienne bo xamné nak gaay boy sétan 50 ah joueur cent wala sax bu ñu dëgërul fit 70 joueur cent gaay wa gars yi waa Sénégal lañu ils sont d'origine sénégalaise seen 11 bi léegi ah donc boy xol yu bëri ay joueurs sénégalais fa nekk ba dal na daal Aliou bu fa demoon du réer ah te Mauritanie Sénégal mom bien presque ben la donc lol d'alphine fi ni les li gars di wax nan Aliou pour pourrait rebondir du côté de la Mauritanie Sénégal la Mauritanie war nañu dajé si éliminatoire mondial est-ce que nak Aliou Cissé dina fa dem ou pas est-ce que c'est fondé ou pas en tout cas mi ngi non gars on tenait à vous donner ces informations relayées par notre confrère de immédiat et n'a que su baaxee ci le bonus ñu la di encore wax une fois li ngeen ñu mën abonné like partager bleu cyclos de notification oui l'information en continu sur eSport TV et sur babo Show Dailer